ñaari jëmm yoo nga xamante ne nii seen yitte jëpp mooy jàng ak jàngale muy sëriñ oustaz Modou Fadil Ndiaye ni sa wetu ndeyjoor ak al oustaz sëriñ Cheikh Kunta ñoom ñëpp ñuy boroomi xam-xam ñu fas yéenee nag waxtaane loo nga xam ne dañ koy waajale màggalu sëñ Touba gii ñii naan ko màgg njëkk gi ñii naan ko màgg di bisub sëñ Touba ñu fas yéenee waxtaan nag ci worma ji nga xam ne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 kon léegi dañ lay bàyyi kàddu gi nga ñëw ci lu war a léegi war ma jooju di gën a manqué di gën a ruus sëñ Cheikh. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala almabuusi rahmatan lil alamin nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mboole ñu ñu bokkal toogal ci jataay bi sëriñ Cheikh Diop ak suñu mbokk sëriñ Mouhamadul Fadil Ndiaye di nuyu it mbokk yi ñi seetaan di sant yàlla suñu boroom mi ñu may ak wér akuk tal ba ñu fekkee jataay bu tedd bii di ko ñaanit mu saxal ñu ci tool bu mel nii ba keroog suñu ruu di tàqaliko suñu jëm di siyaare alxalifatul am li taifatil muridiya ayyadahullahu wa nasara di siyaare it borom penc mii di ñaan suñu borom mu dëgëral ko te kàttanal ko ngir waxtu waqat wi rek euh, Serigne Cheikh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 te arab yi dañuy wax ne isaa tammal lu xalal kalaamu nit ki su am xelam évolué ba màgg rek ay waxam daal di néew kon wax ju bari ji yëpp mooy xel mu des la ndax fekkonte ne li ngay wax yaa ngi contrôler bu baax a baax ne maa yalfas min xawlin illa ladayhi raqibun atid kon kenn ku nekk booy wax da nga peese say baat peese li ngay wax xam fi nga koy jëmale loolu day dellu ci nit ki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 war ma diggante nit ak moroomam mënta ñàkk te ci taxawaay bii rek la sëñ Modou taxawan ngir diriger yoon wi wépp ba teg ko tey ci nii mu aw ku ñëwati rek yëf yi yomb ci loo yow bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf al oustaz Modou Fadil Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne résumé nga war ma ci sëñ Modou joxoon waaye nag al oustaz Kounta waxee woon léegi rek ba lañu see ñëwaat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 tawet gi woon taxawe gépp tax ngeen ko sëñ Tuubaa da wax ak yéen di jëf ak yéen xamal na leen loo xam ne ñun ñi mujj sax xamuñu ko loola war ma mënu koo weesu ndax xam ne waajur ma mënoo fexe ba mag ko mooy mooy sa kilifa dajale seex suñu fees dajale ci seen borom su ñëwoon di imposé naan leen maay doomi sëñ Tuubaa nangam nangam la baayam waxoon ne ku waxe bakkan ñu fayee la bakkan mën na faa juddoo waaye sëñ Mor ca teggee leen na dajale na leen maa yéen dañ noo boole woon dénkaane kañu boole woon dénkaane tey jii nag jox na ma la ñuy dénkaanee